man nag man nag man nag du ma xeex déglu leen ma déglu leen ma rek s'il vous ñun du xeex xeexu tàppet dañ lay wax ne danañ la song si bu yeboo nag ku ñu xam wëyu nañ ko jëli fayu je le dis yéen ñëpp par force lay am suba déglu ma laa wax déglu leen wax dama koy assume dama koy assumer des fois je le dis encore may leen ma rek xam nga xam nga waxtaan balaa neex ngeen déglu dama ni dinañu jël suñuy disposition parce que tey parce que tey jëloon nañu toutes nos dispositions non waxuma fayu comme si da ngeen daw boo ko gis naa li nga leen def doo ngeen leen ba ñu daw mais loolu doyul ci man suba kuy ñëw man maa leen ko wax je prends mes responsabilités. suba kuy ñëw loo am ci arme na ko indaale. su ma nee arme dama ne su ma nee arme bu leen bàyyi paaka. bu leen bàyyi gaas yi bu leen bàyyi dara. Non, non, non, si, si, c'est ça que je Non, non, non. Je vous dis, je vous dis, demain, demain là je mets le ministre de l'Intérieur devant ses responsabilités. Puisque notre caravane, nous, nous avons sur le boc. Nous sommes en campagne électorale, hein? Il y a une immunité totale, c'est pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce que campagne électorale, taxi, gagner, tu ça, tu es couvert par une immunité. On ne va pas se laisser attaquer Ici, faut cyclique. Demain, on va se préparer en conséquence. On va se préparer en conséquence et ce que nous devons faire, nous le ferons. Nous nag dans le calme et la sérénité Nous ñi nga xam ne may leen ma je ne peux pas être d'accord il ne faut pas dire ça je vais dire ça parce que demain, quand ak ay jigéen les violenté leen gaañ leen ngeen ne ma naa noppi du ma noppi je vais parler ma ni ñi nga xam ne dañu nangu seen bagage nangu seen téléphone yàq seen oto sàcc seen xaalis nañu gis Mohamed Ndiaye ñoom ñëpp nañ gis Mohamed Ndiaye dina leen recenser yéen ñëpp et on va faire le nécessaire pour que li ngeen ñàkkoon xam naa ne nu ñu leen delloo lépp je veux dire moralement parlant

moom Abbas Fall nag nee na day fayu te dina riposte Abbas Fall nee na day fayu te dina riposte réewande nag tubay la réewande tubay la réewande tubay la ku mu neex nga sol ko moom Barthélémy Dias moo tax naan réewande tubay la Barthélémy Dias dafa war a xam ne moomul nit ñi na bàyyi bandi bandiloom ji mu nekk na bàyyi bandi bandil réewande tubay la Abbas Fall kii bul ko topp yow nit nga nit nga te nit ñi yow la àndal bul topp kii lii mu nekk nii di violente woo ko réewantaloo ko ci kaw nit ñi di bang bang yow bu ko ci topp nekkal nit li nga waxoon génnaat ci ndax ay paaka ay jaas moom wut siwul si campagne bi dara nañu woote jàmm ak salaam Abbas Fall yow la nit ñi àndal yow la waa Ndakaaru àndal Abbas Fall yow la waa Ndakaaru àndal yow la Sénégal yëpp àndal nañu woote jàmm ak salaam ci campagne bi donte nag dañu laa tooñ dañu laa tooñ ba fa tooñ yam ndax waruñ leen a fekk ngeen mobiliser wu Sénégal gépp waa Ndakaaru gépp topp seen ginnaaw ay nit ñi tikkiwul dara ñu jëmul fenn ñëw ne dañ leen di kar di leen dóor wala ñu di leen sànni ay xeer loolu ci boppam moo jëmul kër te loolu moo war a dakk loolu ci boppam moo war a dakk waaye nag buñ la wax nga fayantoo benn yoon ndax yaa ëpp doole yaa man yaa ëpp doole Abass Fall Abass yaa man yaa ëpp doole kenn du la wax nga fayantoo de kenn du la ko wax yaa man yaa ëpp doole léegi nag doxeel ak sam xel yow la nit ñi àndal borom caq day moytu du xeex ak borom baatu neen yow la nit ñi àndal kon nag dangay xam ne yow la nit ñi àndal kii nga xam ne bandi la waga la la lii mu nekk da nga ko ciy bàyyi ñoom nit ñi topp ñu leen faale wu ñu leen te yow Sénégal ñoo lay topp ndakaaroo lay topp ndakaaroo ngi sa ginnaaw Sénégal ngi sa ginnaaw kon da xam bu baax a baax ni ngay doxale instant bi yow la Sénégal gépp àndal band yi ak kajabaan yi da leen di bàyyi tekkiwun dara te duñ ko tekki tey ak ëllëg bàyyi leen noonu ñuy wër di waga wagaloo kat wër di wej wej di wax nii gars yi nañu wax Abass Fall lii mu wax mu tegaat ko ci suuf dañu woote jàmm ak salaam Sénégal yéen la ñu àndal yenee boroom Ndakaaru Abass Fall loolu xam leen ko bu baax a baax a baax a baax ñoom ci seen bopp ñin woo ñu wuy si leen sax ànduñoo ak moom liy firnde ji nag lii la ñu déglu ko te ñëwaat. waa sàmm sa kàddu ñoo doon meeting foofu ñoom Barthélémy Dias bi parti commencé saaga Sonko la gaa yëpp jóg gis ngeen chaise yi kenn nekku fi woon ci meeting bi. waagu la fii mooy commune Biscuiterie yi. <laughs> yakarna nak euh, sondage am yep demb loolu mo taxone <coughs> pardon demb loolu mo taxone bi président ne day wax ñu bari titone day reporter les élections parce que tay ñi xam dara yep xam nañ ne sondage bon les sondages ne sont que des sondages. Mm-hmm. même s'il y a une forte probabilité bo xamanteni meun meun nañ ko vérifier.

defend defend defend defend defend rek bu la laajee li nga wax foko jele ko wax sondage fu mu waxoko ba pare ne yow yor ngay sondage ah réew doxewut nii nag réew wut ni de na sa yaram di daw tuti defend defend defend rek na sa yaram daw tuti waji fal na sa yaram daw tuti aduna du ni aduna du ni na sa yaram daw tuti aduna du ni de waye batay mom waji fal yikati wat na ay cadeau ci campagne am di wax nee na daa bëgg ñu libéré nenu baxal ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom la doon fasal loolu moo daw yaram xam nga nag woo nit ñi ba ñu ñëw te ànd ñoo ak yow daa metti réew mi nag nii lay doxee Ousmane Sonko la ñu bëgg te ñoom ba léegi comprendre guñ ne nit ñi Ousmane la ñuy topp ñu déglu waa ji Fall kàddu yi nga xam ne moom la doon fësal bëgg askan wi toppandoo ko ca far yàlla mu wéet ca lool. dama bëgg a dégg libéré Bougane Gueye Dany libéré Bougane Libérez Bougane Gueye Dany libérez eh, Bougane Gueye Dany. Laïla. Libérez Bougane <laughs> libérez Bougane libérez Bougane libérez Bougane. te. lii léegi ngeen di gis yëpp ay chaise la ay nit toogu si de ay chaise kese la lii mooy nit yi lii lii nii ma yem nii nii foofu bari woo leen ñu ne da ngeen di waaye parti bi fii la moom la ñuy yem fii ma yem nii gis nga wala nit a yem li nga xam ne feetu sax Maris Ndiaye ñu ne yow da ngeen di da ngeen di mitin ma doon leen cinq personnes ne da ngeen di mitin léeg-léeg nga gis yëpp ay chaise yu weex la. du ay nit ay chaise la dañuy fenn ay chaise yu weex lañ teg.

lu mat 50 auto mais ini nit nekkuñu fi ay nit waaye am na nga ini, ko waaye amul ay nit amul ay nit Hahaha amuñu ay de am nañ ay at waaye amuñu ay nit. gars yi lii nag lu ne fàng la kenn du ko jeex gis ngeen ne ñoom amuñu ay nit ba pare coow li bari ñu déglu seen mbaay ni nga xam ne moo waral coow li ak mbumbaay li seen mbaay rek moo téye réew mi te bokk ko kenn ñi si des ñëpp ay bajo bajo lañ ay bajo bajo lañ nañ déglu Cheikh Ousmane Sonko mu sell mi. li nga xam ne moom lay def réew mi. dañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba amatu lu ñuy sàcc ngeen jéggal ma ci kàddu gi. lépp lañu jaay lépp lépp. moo leen lu gën a gàtt. est-ce que xam ngeen ni prison rëbës bee est xam ngeen ni jaay nañ ko. prison rëbës. te xam ngeen luñ ko jaayee. 8 milliards prison rëbës.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

ñii fi nekk ni ñaari nit ànd ñoom ñoom bu ñu leen coppet réew mi yëngu ba pare ñu bëgg a engagé koo xam ne àddinaa ko topp Sénégal a koy topp kon ñooñu dañoo bëgg a rey seen bopp walla ñu sànkulu seen bopp li si des nag mooy kii nga xam ne wax naa moom ne <laughs> ay mbiram da cee bëgg a jóg ngir ndaw ñi bàyyi ko kooku na dem toog te naanam ndox seralu xolam lii bëgg a dugg engagé ko bu ci duggee defet la ciy jële ak naqaru àddina Seydina ak ndaw ñi kenn mënoo leen a tàqale kenn ak ku mën da doona xam-xam bu ñu la mën a waxal ne am nga ko munoo ci ndaw ñi ak si Seydina Ousmane dara loolu nag nit a koy xam bu ànd akum xelam mooy xam loolu nit day xam ku yàlla defal loo xam ne nii defalub yàlla la da koo defal Seydina Ousmane yàlla daa tibbal Seydina Ousmane ci tibb yu njëkk yi la ko tibbal kon ñi nga xam ne nii ay ay ndaw lañ ca topp ko nañu xam ne loolu lu yàlla dogal la ci moom kenn mënu koo diw kanta nak ñu naan ay serigne nangam ak ko ay la ak man na dëddale ndaw ñe ko sayyidna usman lool ay tiaxan la ay tiaxan kep ci la waajooju nek mom bi da ne dem liggéey te baye tiaxana ni politique ne dem liggéey ci politique jima xol nu muy def ba convaincre nit ñi mais du nii na gëm yàlla sayidina ousmane yàlla fi yalla baye te musul ko ci chat ak làmmiñ ak kat yi nga xamni ni bëgg nañu yaq te biñu defar te xamuñu luy defar